dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dal leen jàmm ci xibaar mu mel ni nag mun nañu wax ne bonne nouvelle si li nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko gannaaw nag lu mu doon. woote nag mu nekk loo xamante ne ñëpp daal dinañ ko wuy mu muy boo xamante ne moo ngi tàmbale woon fële sa Ziguinchor mais su ngeen xoolee depuis si ngoon dakaar jël na wàllam Kaolack ak li nga xamante ne moom moo di yeneen région yi loolu rek day wan ne ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall yi commencé nañ nag vraiment di di doyal waaw. mel na ni président Macky Sall nag gars yi dañoo doyal bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di moom parce que gis ngeen ne jeunesse bi ñu engagé jor nga xamante ni moom moo di risque ngir ak moom donc nag projet bi mun nañu wax ne mënu am parce que tamit leen rek lañ bëgg jël Ousmane Sonko dugal ko li nga xamante ni moom moo di si kaso bi te loolu jeunesse bi. du ko mës a nangu quoi donc nag il va falloir ñu jéem a xool léegi nan la ñuy demee Ousmane Sonko moom du dem tey du dem ëllëg te askan wi moom lañu bëgg donc nag dañoo dagal li nga xam ne moom mu seen adversaire mais ak lu si mënti am rek Ousmane Sonko moom procès bi moom du fa dem te yaakaar naa ne tamit dara dara dara du ko si fekk si parce que tamit moom moo am li nga xam moo di dëgg.